digoon nañ leen benn émission pour xamale leen nag suñu ay kilifa yi nga xam ni seen loxo dafa tax lool ci suñu mbiru or bi muy li ma tuddee les quatre mousquetaires su ma nee les quatre mousquetaires nag Aliou Ngouille Ndiaye la Ousmane Ndiaye président Macky Sall ak Abdou Aziz Sy bi nga xam ni moom mooy DG nu mu tuddati. Euh, Sabodala min dooru Sabodala bi wax Teranga gol wa ñu ngi ni ñi moy les quatre mousquetaires euh, dinañ leen indil contrat yu signé avenant ñu signé naka la yoké périmètre bi ba mu nekk ay kilomètres carrés yu bari bari bari bari ak ku ci nekk lan mo ci responsabilité donc nañ leen publier avenant ou convention minière ngeen xam ku ci nekk ban responsabilité la ci am nee nak ay ministre des mines yu fi jaaroon ay ñom Balde ay ñoom Ousmane Ngom ay ñoom Madické Niang ay Macky ñoom ñëpp ku ci nekk am na ci part de responsabilité boo xam ni tey jii dafa baax Sénégal yi xam ko kon ñu commencé rek récapituler mm-hmm. émission bi ñu defoon démb euh, jeudi mm-hmm. euh, li ci am solo solo émission bi moo doon wane ni la ñuy déclarer ci teneur ci euh, gisement or yi ak lii am suñu njort da cee ñaaw parce Euh, Fumelni mel Kerekunda par exemple qui euh, or bi Fofu, nous fa déclaré benn teneur bu 6,90 virgule grammes bu six virgule grammes euh, ci totalu minerai de 744 000 tonnes. Vous ci sept tonnes gisement bu tout Massatou nga xam que minéré. Fofu, nous avons déclaré qu'il teneur 1 gramme. Bon, Kerekunda, mon ni. Non, non, Kerekunda, pas, pas Kerouloulou, Kerekunda. Oui, pas Kerekunda, mon ni. Mm -hmm. Le Kerekunda fille, 744 000 tonnes de minéré. Minéré, donc, moi, cher, bien, je suis en or. Le Ligi or, qui tonne bonnet, d'être dans 6 grammes.

744 000 tonnes la. Mhm. teneur bi nekk 6 grammes 90 presque 7 grammes. fii minerai bi 32 millions de tonnes 32 millions 800 000. presque 33 millions. Mhm. teneur bi nous déclarons nous 1,20 grammes. xam nga dafa wàññeeku bu baax a baax a mhm. bloc bi dafa compact bëriwul ay porox ndoll bëriwul ay yaraax yaraax. comme Kerekunda, bi nga xam 6,90 grammes donc li illustration la rek pour wane ni entre li ñuy déclarer ak li am war nañ ko saytu bo vous may attirer attention autorité yi euh, dama gis ni par mesure conservatoire dañ wara arrêter toute exploitation minière rawatina orifère ci zone Kédougou le temps ñuy def l'audit du secteur minier parce que euh, Teranga Gold Eindhoven investir na une usine qui en production Nous avons une image mais duñ ko une mais parce que nous ci ñëwaat ñëwaat usine boobu mu ngi engins dama pour régime euh, régime. ko ñaari ñaari la yor Nous wax d'accord engin boobu bo blasté dynamité lu tolok 5 hectares parce que ñoom dañuy jël ay dynamite ay genre bombe euh, seetal ma image bobu euh régie euh ñom ci ci ben fan 24 heures mën nañu roñ 5 hectares de minerai donc li moy processus bu ñuy xellee or bi donc euh, ay sac yu ndaw lañu def pépite d'or bi légui xeer ñu leen won ci souf mom mo nek ni ki moy Abdou Aziz Sy l'un des mousquetaires mom moy euh euh, euh DG Sabo de la Gold mooy DG Sabo de la Goule donc bu ñu doolee image bi tuuti voilà li ma doon wan kii ñaari tumbukaay la yor kii mën na jeexal te bu kii buy liggéey guddeeg bëccëg li fa nekk léegi mu jeex de hmm. engin bi warul liggéey foofu te jamono yi mi ngi mi ngi def noonu tey tey rek tey benn avion dem na sanq tey tey la lundi euh, tey la lundi hmm. lundi vingt hmm. neuf lundi vingt neuf sànq ci booru onze heures midi am na avion bu dem te bu vendredi ba vendredi la avion doon dem ça saa ñu amé cargaison rek saa ñu amé or bu doy rek lañ la avion bi di dem. Hmm. Ben auto mo daan yóbbu or bi tay ñaari auto ñoo yóbbu or bi ñaar ñaari auto. lu hmm. leer la leen di wax dañu jël mesure conservatoire arrêté euh, exploitation or bi ba ñu audité ko ba paré. Hmm. kon li récapitulatif. bi ma tu def ci walu or bi. donc. Euh, kër nga baal ci responsabilité yenn ministère la comme ñaari yi wax ministère des mines. mines mais c'est la première la responsabilité première du président de la république. Hmm. première responsabilité bi président de la république la. donc mais mais fofu est ce que moyens yi nga xamné ne jël na pour arrêter travaux yi nek ci ki bi ci corniche bi est-ce que mom mën nako défat tam arrêter mbir mi parce que hmm. dafa melni li mo gëna nek lu urgent ndax suñu alal mo nek di dem bu jëlee décret mu dak bu joxé instruction gendarmerie armée mu C'est tout bu bu yónnee correspondance euh, société extractante yi mu dakk waaw ah, léegi kon lan moy retardé lool lan moy retardé lan mo meuna retardé euh, décret bi ñu mel pour meuna arrêter li parce que ñom ba fekk ne euh, vendredi par vendredi lañ doon exporter or bi bi yoon ñu ñu commencé dikoy accélérer donc lool ce qui veut dire que ñom peut-être que ñu ngi bëgg profiter profité ci loolu noonu laata décret bobu nonu ñëw mm-hmm. waaw ñom xam nañu il va y avoir des mesures conservatoires xam nañu ni il va y avoir renégociation des contrats. Donc, on va vers euh, la préférence nationale. Parce que les Sénégalais, qui gèrent les mines d'or, ont l'exonération est concernée, nous, nous avons qui est Donc, nous avons vu que nous avons goudi ak qui goudi gi urgence expliquer. norme de sécurité bu recommander. C'est tout parce que ay excavations yu ngande ngande ngande ngande ngande la boo xam mën na am accident donc bëgg ak bëgg tibbu suñu alal kessé mo leen yobbu ci di exploiter en pleine nuit donc tay ji je crois que le gouvernement mu ñuy déglu parce que on alerte en tout cas mm-hmm. pour que ñu arrêter affaire bi le temps ñu saytu ko buñ ko arrêter nak bon ñun xam nañu lan lañu wara war ak fan lañu wara war ak yan mesure lañu wara jël pour corriger donc euh, lolu moy première étape bi digoon nañ leen aussi ni dinañu def touti législation minière mhm. pour ñu xam li ci texte parce que kérok ange biñ ko né 10% pour am ci suñu ressources naturelles dafa jaxlé won mhm. te gis nañu ci commentaire yi ñi dafa metti sénégalais yu bari mhm. légui nak tay ñu ñëw jukkil len lenn ci biir code minier bi parce que du soxla ñuy jangat lepp mais lu ci néew mo ci am solo quelques dispositions yo xamni dafa am solo rawatina bokk na ci article 30 article 30 mhm. lu mu wax mom wax ni état 10 la ci am mhm. l'état peut en sus des 10 d'actions gratuites Les 10 pour cent gratuite la dañ ko ko may mhm. état na négocier pour mom ak pour secteur privé national fofu tamit fay indi corruption parce que état bu négocier pour secteur privé national gis nañ fi Macky euh, li mu jox rakkaam ci wàllu pétrole gaz donc état bu fekkee ni mën ma négocier man ma nekk xaritam mhm. mën na indi ay problème lii ñu war le secteur privé national une participation au capital de la société d'exploitation mais 10 de cent bi moom la ci am dès le départ lii code minier bu 2003 2003 mais code minier bu 2016 bi tamit 10 pour cent ci nekk donc loolu dañul bu ñu jógee ci article 10 dañuy chamber article 56. article 30. article 30. article parce que man. man sama xel bi dafa commencé dem <laughs> parce que quand ma ngi bëgg wax ci euh, ci permis mais si je waté sama bop mhm. or la mhm. alors que fofu je la wax. ngi bëgg Canada mais ma ngi wax Australie. Mhm. parce que Toronto.

phosphate ak lu mu mënti 500000 mhm. da ngay fay comme droit d'entrée 500000 francs mais loolu touti na de. motax ma bëgg ñu xam ko. parce que nit ñi xamuñu lu bëgg. dama gis xol yi seen xol yi di metti te xamuñu man limay limay dund lan la. dama kay seddo ak ñom nak ndax sama yéen gëna a oyof tuuti. Mhm. <laughs> mais néna pour concession minière concession moy suñu momel bayé nañ lako mhm. yaay borom ya mom 90% yi. wala sax 100% pour yi pour nga am concession minière sept millions cinq ngay fay xaw ma kan moo ci mën a am terrain ci koñam fii sept millions 500 mille ku ci mën a am terrain ci koñam na na ma wax lii ngay amee loolu ngay gis mu yaatu camion yi di ko wàqi di ko di ko di ko yóbbu ci usine ba ñu koy wal lii la ñuy fay lii article 56 code minier la sept millions 500 mille la ñuy fay droit d'entrée pour exploiter suñu or suñu zircon suñu phosphate suñu nak autre titre minier d'exploitation moy 1 million 500000 manam autorisation provisoire d'exploiter bu le ministre bi défal koku autre titre la hmm. exploitation de mines semi mécanisées gis ngeen deg ngeen ko fi ci affaireu bi hmm. tam 1 million 500000 yi ñun lañuy laaj légui buñ joggé ci 56 defna bala nga joggé fofu clé d'or amona hmm. question ci li ñuy laaj ci lan lañ pour mëna laaccé li dañ ci laaj baatu askan bi wala dañ ko defee ci ñu leen. laajuñu ci ben baatu askan bi. Mhm. tubaab yi ñoo leen ñoo ñoo ñu gëmloo ne. Mhm. en matière de promotion minière. Mhm. il faut ñu am ben code bu attractif bo xam da fay xëc investisseur c'est ça légui pour investisseur yi ñëw nag. il faut ñu woyofalal leen. il faut ñu woyofalal leen. Euh, li ñu wara a fay. il faut ñu teggi leen ay taxes.

ci fii la bëgg ñëw ci 7 ah, millions. 7 millions 500 7 millions 500 waaw moom la gars yi fay de. da ne loolu loolu moo tax maanaam euh, soo ñëwee pour. Euh, ngay fekk benn benn village. Mhm. village boobu noonu fekk or a ngi se. Mhm. da ngay dem rek nga fay 7 euh, millions 500 bu la neex nga déplacé ñooñu pour mun a wax foofu noonu or bi. waaw loolu loolu ngay kese kese 7 millions ngay fay. waaw mu ngi nii ak loo fa mën a fekk de. Mhm. lii yéen xamu ko il faut internet yi xam ko lii moo nekk ci contenu yi léegi internautes yëpp euh, dinañu fekk ci commentaires yi en lien ma attaché leen le code pétrolier pour ñu xool ko ñëpp am ko léegi bu ñuy def émission dañuy taxaw ci ay dispositions yu précises. d'accord maanaam ci ay articles yu précis yoo xam ne jàngat moo ci nekk parce que code bi boo xoolee li muy yaatu yaatu yëpp li ci am solo ëppul fukki article fukki article yooyu bu ñu ko benn bennalee ñëpp dinañ ko pek dinañ ko maîtriser metti wul comme pour am droit d'entrée ci titre minier bu dé concession 7 millions 500 ngay fay bu recherche 500 000 ngay fay bu autre titre comme autorisation provisoire euh, d'exploiter wala autorisation d'exploitation de petites mines nga xamni ni du ci chef de l'État mais ministre bi accordé bu boba 1 500 000. mais lima ma moy mooy montant yi mën nañ ko c'est ça tous les 5 ans par décret. Oui, révisé le code de D'accord. Parce que dem a 25 millions. Oui, 25 millions pour une concession minière. 25 mm. millions. code de 2016, 25 millions. Mais 25 millions, c'est dar ci minu or. 25 millions, madame, c'est... Un kilomètre carré. Mais c'est délimité ou bien c'est délimité Non, c'est délimité, parce que c'est le cadastre minier. D'accord. C'est un plan. Euh, xaaroon sa question bi. Mhm. mais beneen yoon dinaa ko indi. dañ ci ñëw dinaa la jox plan wu benn benn benn titre minier. Mhm. nga xam ne dañ ciy def coordonnées UTM yi. wala wala abscisse et ordonnées yi. Mhm. nga xam ne da nga koy mën a localiser géographiquement. euh, calculer superficie bi. day am délimitation. du nii nii nii rek. donc euh, lii mooy euh, article 56, six. je crois que 59 neuf moo ci tegu ah yankoba. ngi ko d'accord indi ñu article 59, li lii nag. Moy le régime des exonérations. Madame, taxe taxe ñu le titulaire du permis de recherche de substances minérales est exonéré de tout droit de taxe et de douane Madame, qui a un permis pour cette suñu ay richesse ay or ak diamant zircons, zircon avons teggil nañ ko droit ak taxe de de douane ak même COSEC du fay sax charge COSEC Les pour fournitures, les matériaux fournitures, machines, engins, équipements, véhicules utilitaires inclus dans le, programme agréé, ainsi que pièces de rechange, produits euh, consommables, fabriqués au Sénégal ou à l'extérieur. plus maintenant les carburants. Gasoil essence, euh, hors taxe hors taxe mhm. hors y' a un souci de son on dirait non non allez-y donc hors taxe bon mhm. boo xoolee prix ou essence. Mhm. ak prix ou gaz 65 ni 68 68 mhm. de la structure des prix est constituée de taxes. donc 68 pour nous euh, euh, wu nu prix ou nu mu carburant carburant. c'est est constitué de taxes vais reprendre parce que je sais que son bi demoon na. D'accord. reprendre donc article 59 qui a un permis de recherche et de substances minérales euh, euh, de, substance minérale or diamant zircon euh, phosphate tout lu monde mënti donne, exonéré de tout droit et taxe de douane du fay douane du fay dar, du fay sax COSEC conseil sénégalais des charges. est le Puis est-ce que mënuñu nuancer le fait que pas un permis de recherche.

ngay seet xamul wax gis nga gis wala doo gis. waaw léegi xam li ci raisonnable. waaw danañ ci ñëw. mais ci phase d'exploitation. exploitation tamit. Mhm. dana ñëw ci phase d' non d' recherche bi. les mêmes avantages la ñu am. ci recherche bi pourquoi c' est pas c' pas normal. ok parce que pareil, guma donc ba ci carburant yu utilisé. dañ leen koy exonérer xam nga les carburants et lubrifiants alimentant les installations matériel de forage et cetera machines et autres équipements destinés aux opérations de recherche de permis sont octroyés les produits pétroliers servant à produire l'énergie yooyu yëpp dafay taxe les parties et pièces détachées destinées aux machines ak yooyu yëpp du fay taxe mais li tax ma ni la loolu euh, dafa am loo xam daf ci jaadu les sociétés les sociétés sous-traitants mhm. sous-traitants si. maanaam ki am permis bi faites mhm. bu les ni société sous-traité nga moi moom mhm. da ngay même régime d'exonération que moi c'est auto TT lay don taxe ce carburant hors taxe nga koy jënd même avantage yi nga am normal lu le ministre su fekkee dama dëng créer sama société muy sous-traité yow mi mm-hmm. Mm-hmm. bénéficier de toutes les taxes ma importer ay engins lourds mm-hmm. ak yu euh, euh,

Y compris. les sociétés de géoservices telles que les sociétés de forage, euh, de traitement y compris les sociétés géophysiques, d'analyse et de tests chimiques intervenant dans la réalisation, etc. etc. a yankoba texte euh, phase d'exploitation. 60 <coughs> article 60. <coughs> article 60 l'article 60 mais d'accord hein? je crois que régime prévoit 60. 60. am 60. de voilà voilà 60. voilà code code code mhm. voilà limonère. Limonère. code 60 ma téléphone. l'admission temporaire régime de l'admission temporaire. Dès le 71 Voilà voilà 60 60 60 60 nañu nañu yem ci ci. ci 59 bi mu étalé ko wala. 59 bi waaw. mom lay étalé. 59 bi ci fin bi. 59 mhm. bi ah fin attends attends attends les parties et pièces détachées destinées. non non non non c'est pas ça c'est pas ça kon euh, Ange. yow mi doon waxu 10 bi en attendant qu'on qu'on se retrouve. 60 euh, baa ngi hein 60 000, là lan titre 60 000 régime de régime l'admission temporaire déedéet déedéet léegi droit conféré en en déedéet. Ah, ça fait 4 000 euh, exploitation avantage hmm. particulier. accord pendant la phase Ça mm-hmm. Ça fait 4 000 dem. accord pendant la phase d'exploitation, non non non ça correspond à article 1, hein? correspond. article 63. 63 63 les article 63 non bàyyi ma lire leen ko na article 63 en attendant. 63 voilà su wàccee rek di ko gis. 63. voilà mooy bi nekk ci kaw avant 64 bi. Hmm. waaw ça y voilà 63. Mhm. léegi Lamine sa question bi lii mooy tontom. waaw nee en phase d'exploitation ils ont les mêmes avantages. autres avantages fiscaux en phase d'exploitation loolu mooy titre bi. Mhm. Les pendant toute la durée de l'exploitation. exploitation. 48 le commencé exploité ba exploité. 948. pendant toute la durée de l'exploitation, exploitation loolu moo d'abord. d'abord. début phrase bii pendant toute la durée de l'exploitation, les titulaires de permis d'exploitation ou de concession minière ou les bénéficiaires d'autorisation d'exploitation de petites mines sont exonérés de la taxe de l'exploitation des produits issus de leurs activités d'exploitation sur le périmètre du titre minier d'exploitation accordé Les ñu yéeg tuuti Les ñoom nee attendant non non non jox soxlu woon yéeg sax gisoon article 63 63 yé yéegal 63. 63. waaw Internet, nous ñu parce que lui on a voulu le faire c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon 63 c'est bon bul Bah, waaw bàyyi ma ko sama téléphone ça y est là. Ah, mais. Mhm. encore tout il tuuti rek ben voilà voilà voilà c'est bon c'est bon c'est bon Légui. Légui, nee hein, les permis d'exploitation pendant une période de trois ans pour les titulaires de permis d'exploitation les lay exonérés. Euh, de taxi hein. et de sept ans. Mhm pour les titulaires de concessions minières, à compter de la date de délivrance du permis minier d'exploitation euh, selon les dispositions de l'article 64. Les beaucoup beaucoup de 3 ans à 7 ans les leen exonéré. Mhm. mais xoolal alinéa toutefois les grands projets d'exploitation faisant l'objet de concessions minières et nécessitant la mobilisation d'investissements lourds. Mhm. or vous investissements lourd une une investissement lourd. Mhm. Hmm? lan investissement lourd en matière minière. Il du investissement lourd. même que c'est investissement lourd. Mhm. Hein? bénéficie pour les avantages douaniers subventionnés c'est première disposition d'une durée d'exonération au moins égale à la période de remboursement des emprunts qui ne pourra excéder 15 ans Les 15 ans c'est une période renouvelable sinon comme ce que 15 ans à partir de la date de délivrance de la concession donc les gens qui ont ñi ñëw di or di jël zircon di jël phosphate li ñu nous devons ci keesu état sax ñun dañ ko dañ ko renoncer milliers de milliards qu'il parce que des millions de tonnes de minerais Phosphate phosphate ay millions de tonnes ciment ay millions de tonnes euh, euh, euh, or ay dizaines de tonnes ay tonnes yu tonnes tonnes or zircon ay y ay centaines de milliers de tonnes ak ay millions de tonnes d'huile de rutile ak de leucocène xam même chose mhm. donc nous, dal du duggal dara ci suñu même en phase d'exploitation parce que xam nga yaa ngi wax est-ce que en phase de recherche nous comprendre yooyu pour une politique d'attractivité c'est ça mais c'est qu'également en phase d'exploitation ils ont les mêmes avantages mhm. parce que logistique boo pendant toute la durée de l'exploitation Fille nga ñëw 3 ans qui 7 ans que nga naan 15 ans gars la pendant toute la durée de l'exploitation. C'est parce que nous avons 48 ans commencé vous pendant toute la durée de l'exploitation. parce que vous le 15 ans vous le 7 ans depuis. pour à dire de ñun nous donc je crois que j'ai un problème de de de son. non non donc.

cette excavation ak production ñu ngi koy accélérer parce que xam nañu am lu ñëw motax may alerter pour ñu def pause mm, jël mesure conservatoire ñu auditer donc ñom li ñi signé xam nañ ko mais dañ ci am ay milliards la preuve dina len ko wax internautes yi déglu len tu bu baax euh, ci ci code minier bi dafa am ben disposition bu autoriser le blanchiment d'argent. blanchiment d'argent. Les offres di xeex. li OFNAC ak CENTIF di ci code minier bi. indil leen ma article soixante dix. après nga a ci gaz. ngeen tiim ko foofu article soixante dix. Mhm. d'accord article soixante dix. mu ngi nii règlement d'échange. les titulaires de titres miniers accordés en vertu des dispositions du présent code sont soumis à la réglementation d'échange en vigueur dans le territoire, etc. etc. en matière de réglementation d'échange. L'église, absolument, ils peuvent ils peuvent encaisser au Sénégal tout fonds acquis ou emprunté à l'étranger Maintenant, nous nañu dugal ci dëkk bi mhm. bépp xaalis bu am même bu faites, vous faites ni sax dafa jóge bitim ainsi que le produit de la liquidation ou de la réalisation de leurs avoirs yaa ngi may jaxase euh, Yankoba. à euh, l'étranger y compris mon CDS. Euh, y compris les recettes des ventes de leur code part de production. Moi ici, premier point noir voilà voilà. c'est ça. ils peuvent transférer parce qu'ils peuvent ils peuvent transférer à l'étranger. Mhm. les dividendes et produits des capitaux investis ainsi que le produit de la liquidation ou de la réalisation de leurs avoirs Madame les am donc ils peuvent transférer à l'étranger ils peuvent transférer à l'étranger les, fonds destinés au remboursement des dettes contractées euh, de la liquidation de la grave. Hmm. ils peuvent encore transférer fi transférer, fi ils peuvent transférer à l'étranger encore ils peuvent transférer à l'étranger ils peuvent transférer à l'étranger ils peuvent transférer à l'étranger les fonds destinés au remboursement des dettes contractées euh, à l'extérieur ah en capital et intérêts au paiement des fournisseurs étrangers de biens et services nécessaires à la conduite des opérations minières mhm. ils peuvent donc nous nañu de

ils peuvent ils peuvent toujours importer tous les fonds acquis ou empruntés à l'étranger commencer ils peuvent encaisser hmm. au Sénégal tous les fonds acquis ou empruntés à l'étranger Puis, ils peuvent importer puis encaisser puis importer tous les fonds acquis ou empruntés à l'étranger nécessaires à l'exécution des opérations minières c'est pour les opérations minières tu peux euh, euh, manam, euh, importer tous les fonds mën nga dugal façon xaalis bu nekk mhm. donc li mooy disposition bi nga xamné ci sama xalat mo waral banque yu Melni BDK ak Coris Bank ñu taxaw parce que flux financier yi nga xamné mom moom la compagnie extractive société extractive di drainer ay milliers de milliards dafa bëri. loolu tey jii bu doon benn BICIS la wala benn Société Générale wala benn BAO wala BOA wala suñu banque locale yi benn fonctionnaire bu fa nekk gis ay milliards di mouvementé mën na ko wax ku mel ni man wala ku mel ni Pape Alé wala ku mel ni Babacar Touré ñu saytu ko. mais CENTIF c'est ça son son rôle. mais CENTIF CENTIF kii euh, xool xool leen par exemple euh, nu mu tuddati Abdou Aziz Sy kii mooy wan indil ma Abdou photo Abdou Aziz euh, euh, qui est directeur Sabodala régie mhm. indil ma photo photo photo directeur de Sabodala ma question non non non photo bi mu bureau Voilà, ma bàyyi <coughs> question euh, article 70 est-ce que voilà est-ce que le président bu bi pour nous, euh, euh, Yankoba indil indil photo photo qui est bureau parce que je ne sais pas ce qui passe à l'antenne mm-hmm. euh, article 70 mm-hmm. problème là. exonération problème là. mais article 70 aussi problème là parce que ça consacre le blanchiment comment on peut avoir la liberté d'importer tout fonds acquis ou emprunté à l'étranger mm-hmm encaisser tout fonds importer tout fonds exporter tout fonds librement sans règlement Le qui, est Abdou Azizi Il photo bi lan ngeen BDK BDK Je ne xam nga ci table bureau bi dossier BDK mhm. pourquoi tegul BICIS pourquoi tegul société Général. banque Les la ñuy c'est leur banque BDK est or l'être c'est en or mhm.

Mhm. tay ci législation minière mais bu ci kanamé euh parce que sama boy bi dafa japp touti na leen indi article 71 euh même na sama mëne indi article 71 nous commenter ko en attendant mhm. donc BDK Coris Bank flux yi lañuy capté après dañ ci def émission spéciale parce que dossier yi fu nekk ñen dafay gën parce que dañ leen jox ay transfert hors de jugement légui article 71 dafa né mhm. bu la neexé yow mi am compte étranger. qui mhm. banque Sénégal mhm. un compte étranger. Mhm. Euh, pour def ci ay devises dollar ay dollars wala ay euros pour gagner ko compte étranger. oui conformément aux dispositions de la réglementation d'échange tout titulaire de titre minier peut être autorisé à ouvrir au Sénégal un compte étranger en devise pour les transactions nécessaires c'est-à-dire il y a sa compte pour ces transactions en déficit. Mhm. tamit circuit de blanchiment rek alimenté mais attiré souvent attention sénégalais. qui la prolifération correspond. Coris position BDK <coughs> est-ce qu'on va pas faire une pause defal defal defal defal alors quand euh, nous marqué benn pause une minute laataa ñoo ñëwaat ci biir plateau bi Clédor gën a développé li nga xam ne moom la commencé woon. <laughs> waxtaan nga problème micro de alors Ange ans naka nga gisee li nga xamantene révélation yu bees tàq yoo xamante ne Clédor def nako jëm ci suñu alal ak ñu koy utiliser ci ay euh, article ak i code en tout cas euh, en tout cas surtout euh, bu 70 bi bi nga mhm. xamantene mom moy wax par rapport ak exonération yi wala li nga xamantene ne moo di flux ñuy dugal wala diggante parce que Clédor mu doon wax sank légui ni lolu dëgg la parce que dañuy permettre ñoo ñoon ñu mëna duggal dugal wala génnee xaalis am na ñoo xamante ne mën nañ see profito pour duggal ay ay matériaux yo xamantene duñ ko euh, certainement nañ ko déclarer pour exploitation or mais mën nañ ko yóbbu fenen parce que bu xasee ba dugg rek après do amati benen contrôle boo xamantene ndax dañuy xol ndax est-ce que matériel bobu non mom lañuy utiliser ci exploitation or bi keneen mën naka déclarer pour exploitation or mhm. comme ay tracteur wala ay bulldozer mu jëlé ko pour dem défaré ay ay ay yoon wala dem défaré ay tool yo xamantene peut-être xam nga borom doole souvent motax souvent ak les litiges fonciers yi nga xamante dañ koy némé ko fini hmm. parce que ñoo matériel bi ñuy yor pour exploiter ñi nga xamante ne ñoom di néw doole yoruñu ko donc du coup ñom dañuy profité waale ci genre projet yi nii wala genre euh, en tout cas euh, entreprise yu mag yi nii mm. pour indi ay matériel bu ñu ñëwee rek mun da koy mën a utiliser feneen foo xamante ne fu dul foofu te xaalis bi tamit des fois dañuy gis fii nii xaalis boo xamante ne wala da ngay gis da ngay jékki-jékki dëkk ak beneen di nga jékki-jékki gis ko mu yor xaalis bu bëri waaw doo xam xaalis boobu noonu fa lay génnee boo doxantoo ci mbiru Dakar yi boo gisee yeneen immeuble yi yow sax da ngay xam ne lii nii nekkul xaalis bi nga xamante ne da ngay dem da ngay liggéey fen di maa ñu fay la ko ñi dañuy dañuy man des fois sax damay toog ma ne ñii fa lañ jëlee xaalis bi nga xamante ne moom lañ tabaxee immeuble yu toll nii wala fa lañ jëlee xaalis di koy dugal ci yeneen investissement nga xamante ne ay projet yu mag a mag la donc du coup ça ceci nous permet de un peu comprendre ana xaalis bi fa lay jaar wala ñeneen ñi fa la ñu mën a jëlee xaalis bi nga xamante ne dañ koy investir ci yeneen projets yu yu yu mag yi. parce que for nañ ci weewu bay ñu ne yéen euh, en général alal yooyu nga xam ne mooy mag màggaay bu gaaw dañuy gaaw wala boog ñi nga xam ne ñoom ñoo koy def ci la nekk dañuy gaaw rek dem def ko li nga xam ne moo di affaire um tabax maanaam ci immeuble yi ngay wax ni moom ngay jékki-jékki rek gis mu tiim la parce que boo boo xoolee par exemple ki nga xamante ne moom mooy directeur bi euh, bi nekk fële ci ci terrain gold hmm. kooku noonu par exemple tey boo fekkee ne état Sénégal si boppam état bi nation sénégalaise si boppam dix pour cent rek lañ mën a am ci or bi keneen ko nga xamante ne dafay liggéey sax dafay mel ni sax xaalis bi ñuy am parce que vingt vingt sept sept bi nii yëpp da ngay joxe sept millions ñu jox la ko ak li nga xam ne lépp la fi mën a trouver ci or da koy exploiter lépp la foofu ci or rek yow dèjà tey ñu ngi naan ci xawma gramme bi xawma kilo or bi mu ngi toll si ñaata. quarante mille ñu jox la yow ñu jox la sept millions pour après nga ne nit ki espace boobu noonu yëpp mën nga fa mën nga kaa exploité mm-hmm. lépp loo fa lépp loo fa gis ci or rek yow yaay yow ci mm-hmm. ci sept millions mm-hmm. loolu dafa dafa dafa tuuti tuuti boo xamante ne sept patron yi patron yi mag yi 7 millions loolu si ñoom du dara si ñoom. Clédor nee na 7 millions jamono yi mënul jënd kër mënul jënd terrain. non wax na dëgg fii nii ci Dakar fii nii kan moo fi mën a am 7 millions terrain. 7 millions. am na yeneen dëkk sax yoo xamante ne tey tey tey boo fa demee yore 7 millions dafa mën a am dafa mën a am terrain. Mm-hmm. ñu jox la état lëm état nation sénégalaise boppam ñu jox ko 7 millions ñu ne la waaw dem leen demal exploiter loolu moi je pense que euh, lii nañ dañ koy war a xoolaat et le plus vite rapidement possible ñu xoolaat euh, li nga xamante ne moom moo di code minier bi bu ko defee ñu mën a jubanti li nga xamante ne moom moo di ay dëng li nga xamante ne parce que lii nii euh, jëmul kër quoi am na yu bëree bëri yu nga xamante ne war nañ kaa changer. war nañ kaa xoolaat am na solo. alors monsieur Diouf nan nga gisee xalaatu Clédor wala boog révélation bi mu def ci roppalaan yi nga xam ne ba tey ñu ngi naaw di jël or bi di yóbbu. waaw xam nga loolu <coughs> day engagé responsabilité ministère de tutelle yi. Mhm. Euh, fu ñu toll nii gis nga président mi ngi arrêté ay construction sur la la corniche de Dakar. Mhm. mais def na dara gënal urgent li nekk ci domaine minier bi dañ toll fi nga xam ne dañu arrêter tous euh, les travaux d'exploitation yu nekk au niveau des zones minières mhm. parce que loolu rek nekk la seule possibilité pour nous ñu mun a demaat ci defaraat parce que problème mu euh, mini Sénégal ak euh, pétrole ak gaz yi mhm. c'est des problèmes de texte mhm. parce que boo xoolee li ñuy wane fii léegi ci texte bi surtout article